xam nga adina avant ngaa choisir ya mom sa bopp muy sa jabar muy sa dine, muy sa métier muy sa tarixa muy sa parti muy sa kilifa tu es libre quoi tu as le temps de de rassembler le maximum d'éléments d'information et d'appréciation avant le choix mais boo xasee tànn du lo moom loo bokk ak nit ñi la donc règle ya fay daw dang koy respecté man ñep xam nañ ne ragaluma li may xalaat dama koy wax am ak ñak la yamale yalla la gëm mais président moma doy ci njiit da wax ji moo ma doy ci ci modèle ci référence ci repère ci jaar-jaar. ba ci nga war ko soutenir ci troisième mandat boobu éventuellement. bu fekkee daf koy daf troisième mandat bi encore une fois sama parti politique waxagu ci président moo ñu yilif ñu ñoo nangu ne moo ñu doy moo ñu jiite. mu ne bu ci kenn wax ci mbedd mi mais duma ci wax leneen li ma ci yokk nag mooy ñi ma déggagum ci wax ci dinaa la ci limal ñett wala ñeent ñeent joxewuma suma xalaat joxewuma suma xalaatu parti encore une fois. ben professeur bu nek université bu constitutionnaliste bu Babacar Gaye l'a dégg mu wax ci xam ko kooku ak ñun président politique mu ne c'est un mandat ce serait un mandat légal constitutionnel Barthélémy Diaz qui est un ami qui est aujourd'hui un des plus farouches opposants de notre régime dégg nga li mu jox te du ah dégg Sénégal dégg nañ mu c'est légal c'est juridique c'est constitutionnel Bamba Fall Medina la dëkk xalifa Sall la àndal mostaad ak ñun lu ci wax dëgg nga ko donc yi ak opposants yi ñoom ñoo ne mandat boobu mandat bu lalu ci dëgg la mandat bu lalu ci constitution la mandat bu lalu ci droit la ñun waxaguñ ba tey rek ñu ngi leen di seetaan c'est ñoom wax nañ lool rek yéen sama xalaat sama xalaat ni ko sama kilifa bëgg rek laa koy waxee sa mbir parti kon moom nga àndal ci

d'accord yaa ngi dégg donc même su ma àndul ak président ki lépp itam mhm. du ma dem ci penc bi wax fa la ma àndul ak boobu ci biir parti bi laa koy waxee mais du ci mbedd mi